société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali nag ñu ànd xëy yër yéen i ñu xëyando yéen i kaay di la Soleil ak Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu session ordinaire unique 2022 2023 démb la ubbi marathon budgétaire journal bii di la Soleil xëy di ñu xibaar naan ñu Mamadou Mame Diop mi nga xam ne mooy njiitul assemblée nationale yedd na démb député yi ndax nag dafa gis na ba ñuy député yi pëcc ko woon bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy député yi neen leen nag askanu Sénégal jamono ji ñëpp ñoo ñuy seetaana te nag am na loo xam ne moom la askan wi di xaar ci ñun yéen a kaay ñu xëy fekk fa député Abba Mbaye bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nee na lu jëm ci wàllum budget bi nag il faut mu am débat yoo xam ne maanaam du yomb ndax jàppante munta ñàkk ñàkk déggoo tamit munta ñàkk ci mbir mi ndax nag budget la boo xamante ni bu am njariñ la ba moom Abba Mbaye nee na xam ne moo xewoon assemblée nationale ñoom amuñu ci benn complexe lenn loo xam ne ñoom ñoo ngi ko ci ko nangu tey du ñu ko nangu lekk muy gëmmu seeni bët voté ab budget boo xam ne maanaam dara liiru leen ci yéene kaay gi nag nee na Aminata Touré moom daal nay jóge nekk ci lu leer ci groupe parlementaire benn bokk yaakaar démb nag la ñu ko daal di dëggal ci assemblée nationale journal bi nee na moom Mimi Touré léegi député non inscrit la yéene kaay gi di direct news nee na Soxna Dieng Mbacké mi nekkoon député démissionné na Koura Macky léegi moo nekk député yéene kaay gi di enquête bàyyi mbir moomee wax ci tension bi nga xam ne moo am ci kër gi di ASECNA contrôleur aérien yi jamono ji ak direction générale bi maanaam mënuñoo jaaroo ab taal guerre baa nga mel ni male te nag ñi nga xam ne ñooy contrôle aérien yi ba ñu fi ab gerew loolee jëyee naroon a fi am journal bi nag nee na ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ñoom nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax xooxatal ak menaces yi nga xam ne ñoo ngi leen koy def yéene kaay gi de la turbine ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoom góor xuma ñoom dañoo mer ba maara détail ndax nee nañu état bi yi nga xam ne jëloon na ko Touba mu nekk ab bëgg-bëgg boo xam ne nag Serigne Mountakha moo ko daal di waaye nag Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre nee na lii nga xam ne moom la jër liy koppara tabax ci université bi li nga xam ne nag moo jëm ci wàllum entretien bi ak wàllum fonctionnement bi dinañu ci dugal tamit xaalis boo xam ne boo ko xayma moo ëpp sax li tabaxee université bi ndax nee nañu lépp loo xam ne jëm na ci wàllum fonctionnement université bi danañu ñu ñi nga jamono ji dañoo ba maara day taale ñoom nag nee nañu dégg nañu Macky Sall dafa bëgg nag andi ab proposition de loi ngir amnistie Karim Wade Khalifa Sall ñoom ànduñu ci benn yoon waa Macky 2012 ñoom nag nee nañu li nga xamante ni moo am ba des Sall ba léegi amul benn ministre boo xam ne bokk na ci Macky 2012 boo xam ne ma fekk conseil des ministres te nag li xam ne moo waroon am ci mbir mi mooy la ñu mooy gañeendoo gouvernendoo te loolu rek ñoom lay commencé li nga xam ne mooy tournée nationale yi yéen kaay gi nee na nag réorganisation bu mat sëkk la Ousmane Sonko amal ci biir Pastef ndax nee na bureau bi léegi Birame Souleye Diop moo koy jiite Abdourahmane Kébé moo yor lépp lu jëm ci wàllum relation internationale ak lu jëm ci wàllum défense ak wàllum sécurité Falidou Keita moo moo nekk lépp lu jëm ci wàllum communication gi Maymouna Dièye moo jiite jigéen moo nekk porte-parole bi journal bi nee na Ousmane Sonko dugal na ko ci lu jëm ci wàllum ni ñuy doxalee Pastef waaye tamit Lansana Gagny Sakho mi fi jiite woon ay jamono ONAS moom ti ci biir Pastef ak Jacques Habib Sy journal bi ne ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci gauche bi jamono ji te fekk Ousmane Sonko ci Pastef bëri nañu loola yéene kaay gi du l'Observateur nee na Ndongo Diop mi nga xam ne ci Pastef la bokk jamono ji ma nga ca kasu ba guddeem gu njëkk fanaan ko ca kasu bu Rebeuss li nga xam ne moom la koy toppee mooy appel à l'insurrection yéene kaay koo xam salsa lay def ah, ci restaurant yi la commencé salsa daat nay wax ne salsa si Sénégal ma ngi dox waaye li ci des mooy public bi waaye nag gis nañu ne maanaam musique salsa ma ngi évoluer bu baax a waaye nag soo ko méngalee ak musique mbalax bi maanaam seen public bi demeewul noonu nee na nag li nga xam ne jëm na ci projet ma dina enregistré album bu bees ci weeru décembre te dina disponible ci mois de janvier yéen kaay gi di Stades xëy ñu ci week